Seydou il est bon là où il à côté du président il est très futé il est intelligent il parle bien il est très bon mais il n'est pas politique sérieusement Seydou n'est pas politique mhm. parce que Seydou aurait dû réussir beaucoup de choses aujourd'hui à côté même de Cheikh Ba mhm. il pouvait faire parce que wax naa leen ne leen CATB c'était un plus pour le Benno ñun ñoo war a jox leen cër fonk leen comme ni ma def cër ñi dama ñëw jël waa CAK bi yëpp na leen ayca kaa leen c'est vous yéen a fi nekk yéen la Cheikh jàppale yéen la Cheikh financé yéen la Cheikh doon accompagner aller au boulot ñëpp jigéen góor ma jiital leen ne leen yéen a fi nekk buste leen noonu ngay liggéeyee. Mmh, mais ñëw naa noo du yow kii la di xëccoo di mais loolu déjà yaa ngi di problème yow po yaa ko wax politique buggul mooy. Mmh, yow nga am lu toll ni CAK bi nekk fii doo ñëw négocier ak ñoom téy ko ànd ak ñoom ñu uti dara gagné même bu sax élection locale yi fii am na mission yoo xam ne war nañ ko def. Mhm. mais je pense que Seydou moo war a ressaisir tuuti parce que je suis pas le seul des partis de de la coalition yuy wax li may wax je suis pas le seul et j'en sais quelque chose xam naa fu mu ne nii xam naa loo xam ne du ma ko wax fii xam naa lu bari bu jotee nag ñu wax ko mais nelawuñu fii moom ku ñu ku ñu war dinañ la sanction loolu maa la ko wax fii moom. ku ñu war koo munti doon moi je des premiers qui seront contre vous parce que nag on ne fait pas la politique comme ça. Mm-hmm. on fait la politique on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Ouais. mais mënuñu nekk si biir mais lan la xanaa sax football di nga gis équipe des fois ñu jël benn jour takkal ko brassard bi wala kon nag yow yaay football tey. Mm-hmm. oui le problème. Mm-hmm. su ñu jëlee kële santal yàlla da ngay yàlla sax nga toog yow tu déjà essayé mais santal wax na ko nag wax na ne kaa li ñu ànd jàppale Cheikh waaye nag l'homme est défini dans les faits et dans la pratique noo dama ne l'homme est défini dans les faits et dans la pratique loolu bay Seydou bay Cheikh ñëw di yendu suma kër Seydou waroon na fa yendu ba ñuy def meeting clôture Seydou waroon na fa nekk quartier yëpp dem nañ yendu fa Seydou waroon na fa nekk fépp pour dalal xelu nit ñi parce que nag duñ la jiinee dëmm ngay ngay soccoo yax dafa mel ni day am lu mu ñuru effectivement je pense que lii mun naa ne sax bilan laay def fii sur la situation parce que dama ko war a def loolu je l'assume xaaruma Cheikh defloo ma ko xaaruma Seydou man je l'assume en tant que membre de mon parti et c'est moi qui gère le processus depuis le début laa la wax candidat parti yëpp maa leen déglu génn quatre candidats yi ñu sélectionné quatre après auditionné leen au nom de la coalition loolu man maa ko sama mission la woon donc am naa droit toog fii wax li ma xam parce que su ma waxul dama war waa Medina yi